Assane ndeysaan baayam c'est de Gaulle l'ancien champion ndeysaan champion ngi noonu mbër mu ñëw jaxase mélangé ma ngay waaj champion ngi ñëw champion ngi waaj a ñëw ñu xaar ko ma ñëw l'adversaire de Tapha Tine c'est de Tapha Tine c'est le capacholi de Pikine Fami Kandji toujours à ses côtés. Qui prépare le lutteur mystiquement. Et ça, son entourage, les Capacioli. Boy yaa ngi noonu. Son papa est là, De Gaulle. Ses amis sont là. Les férus de Boy Niang. champion bi ngi waaj a dugg champion bi ngi waaj a ay waay ndeysaan regardez l'arrivée de Boy Niang c'est le fils ndeysaan ñu xaar gis ngeen tey ngeen dee tey ngeen dee Boy Niang ñëw na tey. noonu Malaw ak Cheikh Niang ñoom ñooy wane noonu seen bopp ndeysaan ndeysaan dañoo bég ndeysaan seen frère bu aayee dañuy bég dañuy kontaan mënatuñu téye seen bopp seen bopp ñoom ñëpp les lutteurs ndeysaan xool leen barrière yi yaa ngay nu

Ndeysaan regardez l'ambiance à Pikine au niveau du terrain terrain Croix-Rouge une très belle ambiance les supporters de Boy Niang numéro 2 le champion est là le champion est là

Regardez les supporters. Difficile de contenir les supporters. ndeysaan police gi def lu mu mën. gaa yaa ngi màmm. gaa yaa ngi màmm. ndeysaan l'arrivée du Thiapathioly de Pikine. c'est le fils de Dogol et de mère Anna. c'est le fils de Dogol et la très charmante mère Anna. Lion Noir mère Ana kooko yaayam l'adversaire de Tapha Tine est là l'adversaire de Tapha Tine est là si na noonu ah waay kontaan na ma ngay waay ma ngay ak sëriñam sëriñam moo nekk noonu si ginnaaw sëriñ bee nekk ci ginnaaw blouson bi jabootu Aydara bi ndeysaan ñoom lay bëggee def na yëfi taalibe tey gis ngeen ko noonu léegi nag ma ngay def ma ngay wane boppam ma ngay wane boppam ma ngay wane boppam tëggkat yi lay waxal géwél Gana lay waxal Gana lay waxal noonu Gana ngoy tëggal ma ngay ñuug ma ngay fecc ma ngay jaay noonu dafay dem ba ci gam ba ci gànn gànnaa koy tëggal xool na supporter yi xool na supporter yi jàngat bi jàngatal leen ma physique gu Boy Niang numéro 2 il ne change jamais dafa mel ni ki dafa xaw a wàññi daa mel ni ki champion dafa wàññi poids bi waaw wàññi na poids bu baax a baax a baax est-ce que poids bi baax na yéen laa koy laaj. booy ñaa ngi doonul léegi nag. ma ngay jàpp. ma na ba ci wetu supporter yi. doomu géwél la nag. doomu géwél la nag foog mu yëngu. foog mu yëngu. foog mu yëngu. foog mu yëngu. foog mu yëngu. foog mu yëngu ma ngay cappi cappi cappi cappi cukki cukki aa ah, soq ngi noonu soq dugub ñëw na pour soutenir ko soq ngi waxak moom c'est son grand frère c'est Pikine ñuy xaar Eumeu Sène moom itamit saa yu booy ñaa xewle dafay ñëw soq ngi noonu ndeysaan soutenir na ko ba dem Sokh def na lu rafet ndeysaan booy ñaa ngi doon di cokki cokki cukki cukki cokki cokki cukki cukki cokki cokki ndeysaan dafay yëngal de ma ngay boxe jeu de boxe de Boy Niang 2 c'est un boxeur c'est un fin boxeur c'est un boxeur il a été boxeur depuis sa son enfance nee na koy rendi nee ñun ay doomu Pikine lañu nee na dama koy rendi loolu nga wax Boy Niang dafa aga fi waaw ah, ndox ndox la doon saraxe ndox la doon saraxe mi ngi noonu saraxe na ba pare léegi dafay def tuus day def chorégraphie day daa mel ni waa ji du box day mel ni ki waa ji du wane lu mu mënoon dafa mel ni ki du wane lu mu doon entraîné xool leen buuxante bi rek xool leen buuxante bi rek xool leen buuxante bi rek ama seen ñëw na dafa mel ni kii Eumeu Sène mooy ñëw Eumeu Sène dafa mel ni kii moo ñëw Tay Shinger agsi na Eumeu Sène Tay Shinger agsi na gannaaw bi Sokh ñëwee Eumeu Sène ñëw na soutenir ñoom ñaar ngi noonu ndeysaan rafet na ndeysaan rafet na ça c'est Pikine ça c'est Pikine ndeysaan ndeysaan ñoom ñaar dañuy fecc ñoom ñaar dañuy fecc puus ak Boy Niang numéro 2 Ama Sène Boy Niang numéro Pape Ngom moo nekk noonu moom mooy magu Eumeu Sène sol t-shirt bu gris bi Boy Niang Eumeu Sène Papa Ngom ndeysaan ça c'est Pikine ça c'est Pikine ça c'est Pikine oh c'est Pikine ça ce sont les supporters yéegoon ca garab ga garab ga daanu heureusement ba kenn gaañuwul heureusement ba kenn gaañuwul ndeysaan booy ñaa kese heureusement ba kenn gaañuwul heureusement ba kenn gaañuwul ndeysaan loolu mooy tuus euh, bu bees bi nga xamante ni Boy Niang 2 na ko loolu mooy lu bees à chaque fois bu ñëwee rek dafay andi lu bees chaque fois bu ñëwee dafay andi lu bees c'est le géwal c'est le géwal géwal gi géwal gi dañoo dégg waaw waaw c'est ndeysaan xoolal loolu déggal rañ eh, déggal loolu awaay ah, ngewel ya ngooti na ngewel ya ngooti na ngewel ya ngooti na ñu seetaan ba tey ñu des si moom ba tey takk jirib ay ja xoolaat la ëndiwaat déggal loolu lan nga ciy teg Boy Niang lan nga ciy teg ah waaye déggal loolu waay coroxo coroxo coroxo coroxo coroxo coroxo coroxo Jean Baptiste Sala un jeune lutteur de Pikine moom la Baptiste Sala ndeysaan